asalaamaaleykum euh, mbokk internet yi ñuy seetaan à travers euh, Kewlo TV dal leen jamm nak ci euh, laaju bëss bi tay ñu ñëwoon fi ci Liberté 6 ngir waxtaanee rek ci li nga xamné mom moy audition wu Ousmane Sonko waaye nak laata ñuy tambalé rek xamna damay and ak sama caméraman ñu jéem xol rek citoyen sénégalais yi lan la at ban jangat la am ci li nga xamné mom moy audition wu Ousmane Sonko nañ da maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. tur bi naka la. Ah, Khalifa waaw. Khalifa. tey jii la Ousmane Sonko di wuyu ji ki nga xam ne moom mooy juge bi euh, tey ana ban jàngat nga bon jàngat bu ñu si am mooy nit ki bu ñu la convoqué war ngaa dem wuyu ji mais ñëpp xam nañ ne lii wuyu politique la parce que coow li bu fekkoon ne réglé woon nañ ko sa njëlbeen ba kon heure bii du egg si fii ñaata doomu aadama lañ fi jiñ viol est-ce que am na ampleur bi kon donc xam nañ ne moom mooy adversaire politique bi nga xamee ne nii moom moo ko sonal. te donc Macky Sall am na si loo xamante ne xale yi ñoo ko fal ñun nag ay mag lañu ndax lii démb gisoon nañ ko moo tax joxuñu ko suñu carte ba référendum bi oui u non bi xam nañu lu mu fi tënkoon lépp loolu lépp ay mensonge la parce que déjà chaque jour ñu yóbbu ko VAR moom bu mu jàkkaaroon nag ab Ablaye Wade lépp lu mu doon bañ si ab Ablaye Wade ba askan bi nga xamee ne amuñu woon xel ànd ak moom tey moom mooy def lu gën a pire loolu Ablaye Wade daana d'accord soo amee lu la metti nga génne ñaxtu ñëpp xam ne kat lii moo la metti mu mu metti la woon trop moom mu xool si saafara et puis di waxtaan ak njabootam aussi di kaf ak ñoom mais président boo xam ne doo kaf doo waxtaan ak sa njaboot yow dangay def li ngay def nga jël vol dem France dund bi cher na jàng xale yi baaxatul ñëpp xam nañ ne location métti na amaana liggéey bi nga xam ne moom nga war a liggéey pour nga mën a am sax yow loo mën a dundalee sa njaboot kan fayatu la bu ñu waree fay sa devoir duñu la ko sa droit duñu la ko fay tey xale yi bu ñu waree dem jàng du ñu nekk si condition yu baax école boo dem parents d'élèves yi ñoom ñooy defaat. du du sacrifier du cotiser pour école bi mën a améliorer te pourtant parent bi parent d'élève bi dañ koy dagg ci salaire malgré salaire am tuuti na mais dañ koy dagg ci salaire bi robinet yi dañuy yàqu ndox yi du tour kenn du ko kon du ko lijjante école yi day nekk loo xam ne gardien bañ fay teg du am benn njariñ parce que duñ ko fay du mën a toppatoo école bi xale yi pour ñuy génn sax pour ñu nekk ci condition yu baax doo doo ko am déjà école yi day salte dañuy bàyyi ba école ubbi ñuy doog na jub di ko def politique ne dañuy nettoyer école yi wala dañuy defaraat classe yi wala dañuy changer banc de yi loolu yëpp gars yi teg nañ seen bët ndax système bi ñuy jàngalee pour élèves yi mën a développer pour bu ëllëgee ñoom xam-xam bi ñu am ñu rew leen si loolu la ñuy bañ parce que France bi leen colonisé moo leen teg tànk ñëpp xam nañ si loolu kon donc am na si lenn loo xamee ne nii leer na ñu jiit yi ñu am nii depuis Senghor ba léegi Abdoulaye Wade moo fi tane woon parce que bu méttee dina waxtaan ak askanam bu neexee dina waxtaan ak askanam te ruusoon na kilifa diine yi mais kii ruusul kenn déjà moom bu mu ñëwee rek nu mu njëkk a wax mooy sëriñ ay citoyen simple lañu mais bu jaaxlee pourtant si sëriñ si lay dem ñaan mais sëriñ si bu ñu ñaanee moom mu bañ waaye nag bu fekkee ne askan bi ñoo fipp jóg seen bopp mu xamee ne nii léegi amatul pexe mu doog a wut fu mu bootu d'accord ne sëriñ bee tax te faalewul benn sëriñ ñëpp teg nañ seen bët moom gëmul muridi gëmul tijaani respecté wul laayeen yi ndax Touba ñëpp gis nañ ne ndox dafay manqué teewaawoon gis nañu nu mu saltee si gàmmu bi passé ni mu wala ñaata at yoo xam ne gàmmu Tiwaawan kenn demu fa mbooloo ba fay tase nga waroon jël say matuwaay mais ñi nga xam ne ay taalu la ñu ñoo ñoo jël seen volontaire di sonn si dëkk bi ba dëkk bi bu bu ñu ñëpp ñibbee dëkk bi da ngay day day mel ni fii nit du fi fanaan mais pourtant ñoom ñu ngi tëdd fu baax di lekk lu baax seen doom yi di nekk si condition yu baax ñuy pasar pasaree alal réew mi ñëpp teg si seen bët dund bi ñëpp xam na cher na lekk yu bon yi ñuy lekk ñu koy dugal si biir réew mi amul benn contrôle ñëpp teg nañ seen bët tey koo gis tubaab bi bu ñëwee ne consultation gratuite mooy seen garab yi la ñuy ñëw pour essayer ko su ñun su baaxee ñu ñëw la ñu ko doon mayee dinañ ko doubler jaayaat ñu ko te ñoom ñu ngi siy teg seen bët te bu fekkee ne dañ ko war a see ñoom dañ ko essayer seen réew suñu réew lañ koy ñëw essayer su fekkee ne produit boo xam ne dem na booy waajee yàqu bu ñu ñëwee ñu ne dañ ko may ay don changé étiquette bi def si bu nekkee deux mille vingt et un ñu def si deux mille vingt cinq xam nañ lépp déjà lu toll ni ministre de santé ministre de élevage yow nga taxaw ne serrage nañu rey nag yi sans autant contrôle loolu ban monde la ñuy nekk lekk yu bon yi ñu ngi koy jaay si tali bi ñëpp a ngi koy gis amul suivi. léegi dëkk bi dem na ba nga xamee ne ni nit en personne respecté tuñu kenn parce que ñi leen jiite ñoo leen respecté tuwul ñoo la doon dimbale sax ñoo ñoo lay ñëw dërëm bi nga yow ñoo la koy triandé di ko roppat si yow buñ la yorelee duñ la fay ñoom seen xaalis yi nga xam ne ñëpp xam nañ ne baaxul dañ koy blanchir moom la ñu nekk grand théâtre di ko battre ñëpp teg nañ seen bët ñi nga xamee ne nii carrément am nañu loo xamee ne nii ñoom waroon nañ si mën a jël benn somme yow boo demee ba jënd ay ngànnaay déjà nit ñaa ngi xiif mais créer ay projet tey prisonniers yi ngay tëj mu nekk benn budget boo xam ne da nga koy voté chaque jour àll baa ngi ne na yàmbalang bayal baykat yi nga xam ne tey amuñu doole nga dooleel leen prisonniers yi nga casé leen jàngal leen bay ku si nekk at bu muy peine bu mu war a tëdd nga jël xaalis boobu noonu épargne ko boo génnee nga mu ànd ak suivi mais réew dañ koy defar chinois yaa ngi nii liggéey yi ñuy jox chinois yëpp sont des prisonniers ay prisonniers lañ ñun xam nañu parce que ñun defuñu depuis jamonoy Senghor ba léegi ñu ngi voté jamonoy Senghor ba léegi ñu ngi voté dëkk bi ñëpp xam nañ ne tey heure bi boo xoolee lu toll ni capital moo gën a yées. si pays bi nga pays si Afrique pays yu développé tay mo gëna développé yow bu ne da ngay pont, pont pont bi dina def luma gatt gatt 4 ans ay politique lay yow tay bu fekkee ne di nga defar tali tali bi lu dina def cinq ans ay politique lay doon bu fekkee ne defar école école bi mu six ans ndax ay politique lay doon mais loolu amul sens nguur si bu mu toogee ba léegi léegi mu am pour mais politique lay liggéey ay ay ñi nga xam ne ñëpp xam nañ ne lañu ensemble yow nga waroon joxe bon exemple ndaw jël sa jox la ko yow boo fa demee looy dan tàccu jaay taar kii laa far man maay man maay député diw mais ki la faloon fàtte nga ko léegi nag boo doon demee bu xiifal askan bi élection yi jot ngay jël ay maleto xaalis di ko jox mais askan yi dofatuñu xam nañ ne léegi léegi léegi léegi nii nit ñaa ngi dee comme ay sax tey bu problème amee nii ñu ne Ousmane Sonko ko def mais am na mentalité bu toll ni xam na ne moom comme ñoom dem nañ ba bëgg ko jaxase ak askan bi ne leen dina dem wuyu ji te bëggul kenn topp ko tey ñoom rus nañ gisuñu dara ñëpp a ñu liggéey seen liggéey mais ñi nga xamee ne leer nañ ne tey si tey bu ñu soñoon coow am parce que dañoo sonn ndax ñoo am li ñu sàcc parce que jikko boobu ñoom ñoo ko def si ñoom jikko boobu ñoom ñoo ko def si ñoom mais tey tey ñëpp gis nañ Covid 19 bi nu mu demee yow réew yëpp ñu ngi teg seen frontière

waroon ngaa fàttaliku baadoole yi nga nekkaloon nga fexe ñu génn si ñoom Abdoulaye Wade dañ ne doon pasar pasar déedéet ndax da daan fekk baadoole daf ko borom alal ndax mais ki am ba pare loo koy tollee mais projet yu muy def fii yëpp ñu fi ba Abdoulaye Wade bàyyi ba léegi ñaari mandat mënu ko yeggali ñaari mandat projet yi yu fi Ablaye Wade ay finition rek la fi bàyyi woon de mënu ko eggali na mais nañu waxante dëgg kon lan la liggéey tali boo xam ne nii chaque année nga toj ko defaraat génnee budget def nañ si tant de milliards mais luy ndey yow balaa ngaa defar ay tali nga defar assainissement ba nga xam ne foo jaar dootoo fa jaaral mais sénégalais yeew nañu saako ceeb bu demee tey bay nekk si ay vingt et un quelques mille ay vingt cinq mille suukar même chose meew léegi xale yi lan la ñuy def xale yi amatuñu sax goûter ndax lan mburu rek lañ leen di dóoral yóbbu leen école mais ban jamono lañu nekk mais xale boo xam ne ni biiram feesul mais bu demee école du jàng mais système boobu ñoom ñoo ko def cité lu ñu fay def dañu seen benn mouvement ñoom ñoo yëngal xale yi pour xale yi bañ a jàng pour lan budget bi ba mun a wàññeeku système bi ñuy def yëpp ñun xam nañ ko parce que jaar nañ jaar nañ école xam nañ ñuy gars yi di defee seen système mais tey si tey nii li neexoon si askan bi mooy ñu xool koo xam ne dafa diiñ su waxee dina ko jëf kooku nag ba léegi amaguñ ko nguur si nag xale yi dañuy yaakaar si moom rek yaakaar la ñu am ndegam moom moom moo naxoon xale yi keneen ku ñëw tamit da ngay am yaakaar rek yaakaar la am si moom mais nag dina baax parce que tey buñ ko dindee teg ko fa bu deful xale yi ko boo liggéey ku ñëw di nga liggéey loolu rek moo ko mën a faj loolu laa amoon lu ma siy wax wa salaam. gis ñu ngi lay fay. tur bi naka la. Aliou Ngak. Aliou ñu gis ne tey euh, ci la Ousmane Sonko di wuyu ji fee ci juge bi euh, ban jàngat nga ci. non jàngat bi ma ci am comme ni ko ñëpp gisee rek euh, jàngat bi mooy lii aussi waroon nañ ko gën a def pour man c'est pas compliqué ndax affaire bu nga xam dafa concerner ñaari nit donc vraiment dem ku nekk toog seetal sa bopp mu c'est l'essentiel daal pour man mais yeneen yi ñu indi yëpp jaru ndax Sénégal fi Sénégal léegi laajatul loolu jaaduwul ndax dama naan au niveau mondial sax ndax crise bi ñëpp a sonn fi mu faut pas que aussi ñu focaliser wu ci politiciens yi ñu ñuy jël di utiliser de telle sorte que boo xoolee tey jeunesse bi la plupart ñi ci ëpp liggéeyatul pratiquement dañu top politique bi té loolu daf ñuy tarder foog ñu dé xol lu nga xamné dañ koy dépasser fi tollé xol nii fi ñuy jëm moy rew likoy koy moy ñu fexé ba agriculture bi dox élevage bi dox ah xale yi nga xam ne ñu ngi si secteur informel bi aussi ñu ci dimbale leen c'est l'essentiel ndax marché bi nga xam ne passé na sax par parfois ñun dañ daan am ay problème problème yi ñu doon am man fi ma nek dirigeant mars bi dañ daan am ay problème problème yi ñu doon am ñom mars yi ñu daan bëgg def dañu si impliquer ñun gëmuñu ko li ñu gëm moy ñak dem yobu suñu kër politiciens yi ku falu nek ak sa famille boy wut nak da nga impliquer ñepp ci mbir mi mais ku falu and ak say bokk l'essentiel nit ñi dama bëgg ñu conscientiser leen ñu xam jamono ji ku ci nek la ngay am ya koy may sa bopp mais politiciens bi du la ko may réew mi likoy doxal ku nek na nga nek ci war di ñu bañé dajé bi di tégando di naan politiciens réew mi doxal doxal ku nek bu défé no réew mi di dox réew mi la koy doxal doxal ku nekk da ngay jàpp ci la ngay jàpp pour réew a dox man loolu laa gëm état da lay mais état du fekk ku nekk fa nga nekk bu jàpp mu yëkkati la fa demoon a demoon liggéey mënul nekk loolu dafa yomb trop man noonu laa ko gisee cas nag pour man c'est pas compliqué. <coughs> l'essentiel ñaar ñaari mbir la ñaari nit la concerne nañ dem toog juge bi aussi vraiment it nag nañ xam ne Sénégal ñun suñu juge yi leen doyloo bu ñu leen doyloo bu ñu demee toog ñu attee leen ñaata nit leen fi imb kii euh, attee ci loolu ñi ci war a daan daan leen ñi ci war a daanoo ñi ñi ci warta daan ñu bàyyi leen mais affaire bi ñu bañ ko politiser daal man loolu laa gis daal sérieusement ndax man ndax politiser bi ñun arrangé ñu arrangé wuñu ñun askan bi moom vraiment man loolu laa gis merci beaucoup